cher euh, chers internautes de Lou'Bess TV asalaamaaleykum chers sénégalais amat mbégte ak kontaan ñoo présenté leen seen émission Polipositif Polipositif comme ngeen ko xamee ak ni leen ko yàgg di waxee ci élection lañ jëm en 2024 dañ toog waxtaan képp ñi nga xam ne ñoo sékk langu politique bi ndaw ñi ci bokk ndaw ñu ci dugg ku nekk am nga sa kàddu tey nag Polipositif ma dal fii Papa Mbengue Makis euh, Makis dama lay bàyyi nga ndóog suñu chers internautes yi. salaamaaleykum internautes Lou'Bess TV. maa ngi am kontante ak mbégte eh, teew fii ci Lou'Bess TV donc dama fee bokk mais <laughs> c'est la première fois mu ñëw ci émission te fii sama kër la di ñaan yàlla na émission bi doon jàmm di ñaanal aussi tim kër gi ak borom kër gi jërëjëf merci beaucoup. Abdoulaye Wade Pastef jotoon nañu lay bàyyi nga ñëw ci sa interview. waaw fii moom euh, sama kër la Ahmadou comme euh, ni ko papa waxee rek suñu kër la. parce lu bees mooy kàddu dëgg boobu mu ñëw pour dëgg di ziar ñëpp di euh, bégewaat ñëpp encore une fois di ziar bu baax ñi ñuy seetaan voilà fas yéene jàkkaarloog papa le régulateur mais le moo régulateur moom da koy teg nele. amul problème sama waay nga. dama commencé ak monsieur Mbengue monsieur Mbengue papa Mbengue Makis ñu gis ni depuis deux mille dix sax à la veille des élections ñëpp ñu doon xalaat euh, Macky Sall def troisième candidature. tey mu ñëw génn ne du bokk en 2024 en tant que Makis ak li ngeen préparé woon yëpp bi bi mu waxee loolu ban effet la leen def. waaw bon maa ngi kontaan ci sa question parce que tey question bi mënoon na nekk lu gën a metti mënoon nga ñëw ni ma Macky Sall waxoon na du def troisième mandat tey mu ñëw def troisième mandat boobu lay gën a metti ci man ndax du yombalayal ndax waxu kilifa dafa am solo. tey man li ma gis si génn bi nga xam ne président Macky Sall génn na ni du def troisième mandat mooy dafa respecté kàddoom respecté parole am doon nit ka nga xam ne nag comme ni mu ko waxee donc sur le plan juridique si on parle du droit rien que du droit c'était une personne ba nga xam ne il avait droit à poser sa candidature xam nga poser une candidature et avoir un mandat c'est différent poser une candidature mën nga ko poser nga dem conseil constitutionnel ñun la non du jàll poser candidature neex mën nga ñëw def ko mais même poser candidature ba mun defu ko deux la waxoon lay def arrêté na donc sant suñu borom mënoon na gën a ñaaw bu ko waxoon tey man question bi di nga ma ko posé neneen te boobaa lay gën a métti ci man kon damay def lu dul rek euh, di ñaanalaat président ni xam ne dugg na dans l'histoire dugg dans l'histoire weesuwul nga nekk président bi njëkk a organiser élection yoo xam ne doo bokk nekk président ba nga xam ne kenn du la folli loolu rek histoire la ba pare nekk président ba nga xam ne aussi du point social tey ku ne dafa dal du point de vie paix tey li nga xam ne ñëpp dañ doon ñaan yàlla yàlla na jàmmam parce que bu ñu woon day def tamit dañuy xeexoo benn fan ñaari fan après génnaat dem parce que ñun ñëpp bokk ndey ak baay mais tey alhamdulilah ba bu ñu xëyee talaata ñëpp dem nañ ci jàmm. mais mais depuis depuis depuis le début ñu doon dégg deuxième quinquennat euh, mouvement jàpp Macky la ñuy falaat en 2024 ngeen toog di préparer loolu yëpp dernier moment gis nañ fi les élus locaux aussi woor nañ leen toog ak président ñoom tamit ñu ne ko yaay suñu yaay suñu candidat ba ñëpp jàpp ne vraiment lii ñuy wax ni nam mais est-ce que actuellement problème non euh, candidature bi indiwul benn jiixi jaaxa au sein ñi xam ne ñoo ñoo ëmboon Macky Sall ëmb benn boo ko yaakaar loolu effectivement xam naa ne bett nañu bari mais nag xam nga ku nekk ak sa tolluwaay man dama nekk nit ka nga xam ne ku ma xam dëgg di ma suivre depuis 2012 maa ngi taxaw di ànd ak Macky Sall gëm koo nag assume ko fu ma taxaw ni moom laa àndal yàlla may na ma aussi tamit bokk ma ci instance politique mais dama bëgg Macky Sall lu mu dem couleur bu mu jël moom lay jël bu ñuy benn boo ko yaakaar dem voté moom lay dem voté benn boo ko yaakaar boobu mais am nañ ci droit. ñooñu taxawoon ñoom ñëpp bëggoon président Macky Sall nekk seen candidat te xam naa ne président juy na leen maanaam xalaatuñu woon ni peut-être que président ndax ñoom dafa am fu ñu ko tegoon mais tey bu ñu jiwee man bokkoon naa si ñi nga xam ne à la veille ku dem visiter sama page dama ne président juridiquement même si vous avez le droit moralement amoo droit bi man nag kon damay sant yàlla mais ñeneen aussi fi dëkk bi toll ak personnalité président ak président li mu mën a presque def ci Sénégal. moo taxoon ñu amoon raison peut-être ni dañ bëggoon président présenté wu mais itam li nga wax xam naa ne ñu bëri aussi tamit bett na leen mouvement yu bëri taxaw ni dañuy def bëggoon rek président présenté wu moo tax ñu naan ay deuxième quinquennat troisième mandat parce que bëgguñu woon lu dul mu présenté wu. voilà c'est retourné ci ci Abdoulaye Wade Pastef dégg nañu sorti président nee na du bokk en 2024 en tant que jeune bu Pastef euh, bi bi bi bi kaddu yooyu jubee ngeen dégg ko euh, ban effet la leen def. waaw euh, non ñun lu ñëwoon baax na lu ñëwoon baax na. non yéen baax na ngeen faram euh, hmm. toog du bokk moo tax man la ñun lu ñëwoon baax na. dafa am fu may commencé. Hmm. ñàkk bokkam laa bëggal ñu wax ci quoi. parce que am na yoo xam ne ay fee yu fi nekk yow yu lay wan ni le président de la république Macky Sall jëloon na intention def troisième candidature am ndax nit ñi buñ jaawale candidature ak mandat ñu bëri dañ naan troisième mais même su candidature amoon mandat du am ñun loolu lañ gëm bi ci njëkk euh, président dem na jëli koo xamante ni bii woo na ko pour muy benn français mu ñëw pour xoolal ko ndax moom am na droit bokk ci ay élection def troisième candidature waaw wala déet mu nekk fi ñëpp jot ci xibaar boobu lan moo taxoon mu doon ko def mooy que ni bëggoon na ko def beneen bi ci des muy ay fee yu fi nekkoon depuis 2019 ba léegi képp ku taxaw wax ci troisième candidature président Macky Sall nga nekk waxumu nga nekk APR de nga nekk ci biir bennoo Bokk Yaakaar ñu génne la fa non damay ñëw ci damay ñëw ci ay fait non damay ñëw ci ay fait non non si euh, euh, côté information dafa am dafa am lu am solo dafa am loo xamante ni bii da nga koy wax nit ñi comprendre ko dégg ko xam ni lii nga wax am loo xam ni da nga koy jëf nit ñi xam li nga bëgg a wax su fekkente ni su ma toogee ni président am na droit def troisième man troisième candidat nga bàyyi ma sama jàmm kii ni président amul droit def amul droit def troisième candidature am nga génn ko ci parti bi wala nga génn ko ci euh, euh, coalition bi cela veut dire moom ki bëgg a def kooku la ko kooku la bëgg a àndal mooy que ni fee bi mooy moom dafa bëgg a def yooyu yëpp jaar na fi beneen bi ci des ci li mujjee am muy euh, euh, maire yi mu dajale woon yaakaar naa est-ce que waaw les élus ko est-ce que suñu maire bi bokk ci sax wala bokk ci question la rek damay laaj sama sama waa ji euh, dun bokk ci woon ah demul woon non damay laaj damay laaj pour continuer rek suñu maire ñun bokk ci woon élus locaux yi président recevoir non damay yow laay laaj quoi. waaw mais xanaa xamoo dun. ah non damay laaj. non xam nga dun non damay laaj rek parce que aw ma lu ma leer quoi. non xam nga dun est-ce que. Euh, xam naa ko. waaw boo xamee laaj comme li mu doon sama mère. ah laaj ko ko am nga droit nag comme sa mère. waaw mais yow yaa ko gën a jege papa. non man ñëw ma fi pour dun. ñu kon ñu continuer. waaw su ma fi pour dun voilà voilà kon ñi mu ñi mu euh, ñi mu recevoir noonu soo xoolee amul kenn. ku fa taxaw ni ko président bu ma sañoon kat doo dem li président bëggoon dégg rek ñoom loolu lañ ko wax mooy que ni président sans yow ñun duñu dara man dama dépassé léegi li nga xamante ni mooy coalition bi parce que parti yi si nekk bëri na mouvement ya fa nekk bëri na suñ paree kenn ku nekk mën nga génne xool feneen foo dem wala nga ut keneen ko kii mais APR laa wax lan moo tax man gëwma li président wax sama wax waxi bopp la man gëw ma li mu wax même bu Sénégalais yëpp taxawee man gëw ma li muy wax parce que si ay fee laay wax lan moo tax man gëw ma ko jarul woon mu leen di consulter di leen laaj jarul woon muy wuti nit su fekkoon nar na ko parce que dafa ni bind na ko ci livre am bi Sénégal au cœur mooy bi muy wax ba naan Sénégal sama biir xol nee na bind na ko fa. comme bind na fa loolu te wax moom la gëm kon jarul woon muy wuti ba France pour mu ñëw xoolal ko ba xam mën na bokk wala mënul bokk. kon jarul woon non ba pardon kon jarul woon encore muy dem di wutiwaat di di di di di di jël ay nit yoo xamante ne nee nan président amul droit def mu génn leen ci dafa wax benn wax du ma ni wii du ma ni non parce que su ma nee wii euh, gars yi dootuñu liggéey kon kon moom ñi muy àndal duñ ay liggéeykat parce que nguur buy nguur buy jeex duñ ànd ak moom loolu mooy système bi ñuy xeex ñu mooy que ni bu la Sénégal taxee di liggéey. ak nu mu mënti demee même su la nee kii deux jours moo ko bi dese tey dama ne président Macky Sall ñi mu gën a soxla jamono ji ci waxam te man gëw ma gëw ma wax ji. mais est-ce que yéen waa booy Pastef aussi quoi. moo tax yàkkamti wax ji te Macky Sall comme wax rek ñaanagul yéen ngeen commencé di wax. est-ce que ah, wax benn affaire président Macky Sall bu génnoon ne damay def troisième candidature ñun waa Pastef keroog de keroog la ñuy gën a naan café gën a nelaw xëy liggéey yi duñ génn. ah kon du ma déggee li nga wax kon Macky Sall dañoo woon loxoom moo tax mu nekk troisième candidat ñun bu ñu woon day def xam nga ñan ñoo naan dafa décharger sama bopp wala daf non ñun gëmuñu loolu xam nga ñun lan lañ gëm le président Ousmane Sonko sera candidat en deux mille vingt quatre lépp non non. voilà. parce que beneen question bi mooy. li nga wax ni léegi makis euh, le président Ousmane Sonko sera candidat en 2024 pour l'instant gis nañu ko son mu ngi ci euh, guddi gu gu bët setagul. amul amul ngaa balaa ngaa jox muy développé. Hmm. dama am la nga xam ni dama bëggoon moom appuyer ko fi muy waxee léegi nii parce que dama dégg léegi mu ni exemple président Macky Sall warul woon sax di consulter kenn pour man na ndax bind na ko def na ko lépp. Hmm. mais Ablaye foofu ngay xamee waa ji ngand la mais waa ji a perturbé et il faut l'accepter. dafa hmm. perturber ñan dafa perturber yéen ñi nga xam ni bu n'avez qu'un seul débat c'est le troisième mandat Macky du bokk ñoom loolu rek ay seen débat. ñaan ñaan ñaan ah, ñaan ñaan. non bàyyi non non pardon pardon pardon. non non bàyyi ma ñëw après non non bëgg a close parce que nga dugg ci leneen. mais day leeral ci li passé kon du ma ci mën a ñëwaat. léegi dama lan moo moo ñu perturbé ñan. ñan laa bëgg a xam mooy dama ni président Macky Sall da nga ni. non na ba bëgg nga ni nga ni opposition bi. tout le monde. waaw ok dama ni. te opposition su ma ko waxee Pastef mi ci non dama li soo nee soo ni woon Pastef rek. Mhm. mën naa tontu mais soo nee opposition bi du ma du ci génne ah, du ma parce que ñi ëpp ñuy xeex ci opposition bi. Mhm. ah troisième candidature. Mhm. Macky Sall parce que Macky Sall posé candidature am. daf leen a tiital. mais par rapport ak ñun Pastef. non non léegi bàyyi ma ñëw foofu dama ni xam nga dama ni tey da wax lu am solo pourtant dañu ànd wax. da nga ni président mënoon na bañ a consulter kenn ndax bindoon na ko. waxoon na ko et cetera mais dama ne ko mais loolu ci caay-caayu politique président la foofu nga xamee ne waa ji ngand la il vous a donné la nga xam ni ci ngeen di topp di wax di wax di wax ba amu programme ci ngeen di topp di wax di wax Sénégal ba tey ba mu nee deful ñoo ñoo ñëpp a sëgg ils ont tous rasé les murs parce que président moo alimenté débat boobu man dama jàpp ne président moo alimenté débat boobu pousse leen uh-huh. pousse leen ngeen naan troisième mandat troisième moom moom muy leader am muy ñeneen ñu ne lépp lu ñuy xëy musoo leen gis ñu taxaw wax programme Macky du bokk Macky troisième mandat mais président bu xamee ni fii la ñii dama leen di dofloo mais day gën a poussé di def ay actes yi xam ne day mel ni day def troisième mandat pour ñoom ñu gën ci ne fekk looloo leen rey. foofu rek laa doon dugal merci ma tuuti rek damay rebond damay damay damay damay ñëw lancé waat ko ci fi mu nekk. Euh, li pré bi président def nga ni moom moo tax. ñun ñu topp ci di daw mu continuer euh, da nga da nga juum. no non non acte bi acte bi mu def maanaam li mu li maanaam li mu consulter. voilà wa li tax mu consulter. non da nga ni damay ñëw damay ñëw rek ci li nga wax laay tontu rek consulter na de un un spécialiste en droit. consulter man la d'accord. waaw nga wax lu am solo nga ni loolu munoo na ko ci bañ a fekk ndax bindoon na ci benn livre. Sénégal au cœur. voilà ni du ko def du ko def. ma ne la léegi est-ce que timit uh-huh. du caay caayu politique gu Macky Sall. waaw mais caay moo tax mu bàyyi leen ngeen di wax ci débat boobu. li ma wax mu te ñun amuñu programme. Euh, Papa. fii Sénégal. benn parti politique moo fi am programme. Uh-huh. fii Sénégal. benn parti politique moo fi am programme. da damay ñëw yemuma ci programme kese fii Sénégal benn parti politique moo fi nekk. sur les plateaux dama ni sur les plateaux pour ñu mën a wax nit ñi dégg il faut ñu toog fa. mais bu leen euh, non bu ma bu ma wax waa waa d' accord nañ parce que ñun lu président wax loolu non d' accord nañ xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax le président bind na Sénégal au cœur li ci wax papa jàng nga ah mais jëlal livre Sénégal au cœur nga jël livre solution. nga xam ban moo ciy jariñ Sénégal dama ni ñun programme bu ñu nee programme no non dafa ndax mais dafa ndànk mais non non voilà damay ñëw moo tax man la déedéet déedéet moo tax man la donc dama ni yow da waroon wax jëlal loolu yokkute wala nii boo nga xam ne day plan Sénégal émergent noonu loolu nag solo loolu neexute léegi bu ñu attaqué wu ci programme bi bu ñu attaqué wu ci programme bi on va juste parler parce que xam nga ni Sonko da nga ne dañ koy deux ans que il se peut que du bokk élection 2024 Sonko fu mu toll nekkagul candidat yéen waa PASTEF fu mu toll lan mooy seen taxawaay ak seen xalaat Euh, li président wax la ñu wax li président Ousmane Sonko ni ko gars yi di waxee mu sell mi li mu wax rek la wax dossier bi seen dossier la foofu lañ ci toll mais Ahmadou est-ce que mus nga gis kuñ tëj fii deux ans donte waruma la poser question sax est-ce que mus nga gis fii kuñ tëj deux ans de prison ferme mu fekk la sa biir kër xam nga bu ñu nee justice amul ci dëkk bi. non non non waa apaisétation dëgg la mais justice amul am xamul yooyu bu ñu xësee ba exécuter benn affaire dafa war a dem ba jeex xamuñu yooyu mais damay wax benn affaire damay ñëw ci ci ci ci lenn gis nga man buñ ñu nee justice amul ci dëkk bi damay jël kaawu Ousmane Sonko rek teg na le Sonko mooy kan. mooy kan ban condamné ko deux ans de prison ferme mu tëdd biir këram te ñoom ñu am tous les moyens pour jël ko dugal ko ci kaso bi muy benn Ousmane Sonko mooy kan ñu ni day def trouble à l'ordre public bi muy def euh, bi muy jóge Ziguinchor caravane de la paix bi pour ñëw Dakar ñu ni kat Ousmane Sonko def na caravane bi tàgguwul kenn trouble à l'ordre public jaar fa ba ay nit faatu fa ñu war a mën a dem Ousmane Sonko jóge dévier pour ñibbisi ñu jàpp ko ci àll bi mooy bi ñu ko seen anita beeg affaire yooyu duma ci ñëwaat parce que mu ngi ci voilà cag-cag ko comme ni ñu koy waxee non avant cag-cag bi ñu ni fekk nañ ay arme ci oto bi Ousmane ko mooy kan ñu fekk ay arme ci oto bi mu def trouble à l'ordre public ba nit faatu ci Ousmane Sonko nekk fa ñu jàpp ko jàpp fa chauffeur bi jàpp fa garde garde corps bi jàpp fa beneen leaderu Pastef ah jël ñooñu yóbbu leen ci euh, gendarmerie jébbal leen procureur moom Ousmane Sonko ñu jël ko indi ko këram Ousmane Sonko mooy kan. est-ce que kon loolu justice bi kumba am day ak Ousmane Sonko ak ak ak ak euh, ak euh, comment dirais-je ak garde corps boobu ñoo ak chauffeur bi ñoo yem benn juge te responsable bi Ousmane Sonko la lan moo tax jàpp ñu Ousmane Sonko. kon daal li nga bëgg li nga bëgg wax daal mooy. li nga bëgg wax daal pro lan moo tax mu ni dossier bi seen. seen la foofu laa la bëgg a leeral li tax bu mbir amee dañuy jàpp ki ci wetam dugal ci kaso bi moom ñu mu ñu jàpp ko yóbbu këram manifestation bi muy jóg fii di dem di dem euh, di dem euh, euh, comment dirais di dem wuy ji kiiwam bi palais de la comment dirais tribinal nan lan def nan lan def dañ jàpp ñu bëri yóbbu jox jox leen procureur. moom ñu jàpp ko yóbbu ko këram Ousmane Sonko mooy kan foofu la question bi nekk. day tourné ci na Papa daan ah, ah. gis nañ ko aussi comme ni ko Boy doon waxee Macky du bokk Sonko dina bokk Macky dina bokk yéen fu mu toll nii est-ce que du Sonko mooy seen problème. waaw bon euh, maa ngi maa ngi rebondir ci sama sama sama sama xarit sama copain Ablaye. non chaque jour da ngay rebondir li wax waaw. damay rebondir parce que li mu wax ak la question ça revient effectivement il a posé des de de des questions importantes li mu wax aussi dëgg la si war a teg loxo mooy Ousmane Sonko mooy kan. Mhm. mais aussi tim tubaab dafa ne. le temps de la justice ne pas le temps des hommes tey mi ngi naan dañ ko tëj deux ans te ñu ko jël. mais est-ce que yëg nga ni tey lañu affiché décision bi au niveau du tribunal. tey tey. affiché xam naa xamoo loolu mais boo demee nga xool ko. Mm-hmm. peut-être jugement contumace. li nga xam ne moom lañ koy defee. Mm-hmm. dafa am lu nga xam ne moom la ñuy topp. mais après nga vérifier boo génnee léegi. Mm-hmm. affiché nañ ko au niveau du tribunal. xëy na aussi itam ci dossier bi dama gis ne état. dafa nit amul lenn la nga xam ne da koy xañ Ousmane Sonko surtout lu jëm ci droit am parce que tamit qu'on se dise la vérité. non Ousmane waaw bàyyi ma ñëw. non je te laisse la parole. non dama la dégg mais merci demal demal demal. ci dossier bi xëy na état xam nga li xëy na laa xëy na état dafa ne du ci xañ benn droit Ousmane Sonko léppam dog koy jox ba mu mat sëkk. tamit dañu wante dëgg ci dossier bi Ousmane mais Ousmane kan moo ko mën a juger ci àdduna ci lu leerut li mu am yàlla moom rek la ko may ci politique bi moo tax kenn mënu ko fagaagal ci côté justice mënut nekk kenn mënu ko ci Sénégal. di juger Ousmane Sonko ci lu dul yoon jàpp ko ci mënut nekk biir Sénégal mën na ne ci man parce que yàlla mayuma lim ko may moo tax moom mooy gën a am toujours le procès le plus clair Ousmane Sonko moo koy am ci àdduna bi. je reviens aussi tamit di ko rejoindre li ngay wax jàpp trouble à l'ordre public accusé nañ ko ñëw jàpp ñi seen wet bàyyi leen mooy li ngay wax mooy li ngay wax justice bi ku kumba amul ndey ak ñàkk kumba amul ndey tey lii am na ñi nga xam ne ñu ngi ci kaso bi. li liñ leen téye mais li Ousmane Sonko di toog ci plateau yi di wax moo gën a garaaw te téyewuñu ko. Mhm. donc ça revient à la question la pourquoi. donc là je te rejoins. Mhm. te d'accord naa seeg yow merci. waaw may ma may ma Ahmadou tuuti euh, dama koy remercier li mu wax. ci li mu wax quoi voilà ci li mu wax dama ko ciy remercier xamul tax le président Ousmane Sonko nee na kenn du jël décision maanaam kenn du ko àtte ci lu leeru wala kenn du jël euh, euh, loo xamante ni jaaduwul teg ko ci kawam comme ni mu ko waxee parce que pour pour ñuy déglu le président Ousmane Sonko ñaata plainte la Pastef déposé ah amul suite. ñaata yoon lañ ko plainte non. non non non non Sadio y' a am ay preuves ne y' a des y' a des y' a des plaintes qui ont été déposées. waaw et qui sont sans suite. leen gën a mën ak déposé de dañ leen naan déposé na te déposé. non non man la Amadou dafal nag tam ñun la déposé nañ fekk déposé wu. voilà garaawul waaw garaawul garaawul garaawul mais yow nan nga mën a tuddee nit koo xamante ne dañ ko convoqué hmm? mu am droit dem tribunal. wala boog amul droit am droit toog këram. mu jël décision non damay wax pour nit ñi ñi ñuy déglu la quoi. xam a en fait bu ñuy wax man ak yow. man ak yow ñooy wax peut-être tontu nga défendre sa côté. mais après nit ki ñuy seetaan. Mhm. moom mooy juger. Mhm. li ñuy wax mooy lan. nit ki nga xamante ni dañ ko convoqué tribunal mu war a dem. Mhm. am droit dem. am droit toog këram. mu xëy jël décision ni ay ay ay ay avocat am damay dem. jóg pour dem. ñu kar ko. mal mëne ko. mu ni léegi. man maa amoon droit dem. dematuma. damay ñibbiwaat sama kër. ñu ni ko léegi par la force da ngay dem. toj vitre am gaz ñi mu àndal. dóor ko li ñu koy dóor. jël ko mal mëne ko jagat jagatee ko jël ko. ba pare gis nga gis nga dafa am lu am solo dafa am lu am solo. Amadou j'espère que di nga ma bàyyi ma revenir parce que li muy wax nii. li ci ëpp voilà li li ci ëpp li muy wax aussi tamit c'est c'est démontable ah. waaw li ci ëpp li muy wax non c'est ñun ñun ay fait la ñuy wax. non mais fait yi ñun ba léegi passé. effet effet fait à cause xam nga tey bu dee dañ la convoqué nan nga mën a jàppee yow it ñu convoqué nit pour mu ñëw tribunal ñu ni lendemain bi tey jii ci ngoon nga ñëw jël taal say caméra taxaw ni suba damay dem génn leen yéen ñëpp ñu dem. nan nga ko mën a jàppee nga xëy suba ñëpp waa déglu rek moo fi jaar ci d'accord na waaw dama lay wax léegi xëy suba ñëw nga génn ñëpp ñëw ànd ak yow nga ñëw ñun ndaw waaw da ngay dem d'accord léegi jëlal yoon bi nga ni noo du ma jël yoon bi yoon bi ma neex laay jël yoon bi nga ni moom ngay jël boo fa demee xam nga lu fa nekk les deux grands hôpitaux du Sénégal yaa Fann yaa Abass Ndao mhm. nga jugo fa yaa cinq grandes écoles mhm. nga jóge fa pratiquement nu mën a imaginer tey Ousmane Sonko li ko yàlla may kan la ko may Ousmane Sonko fu muy romb mais nañ waxante dëgg bu jëloon tali Cambérène bii ba fii ba fële mais nit ñi duñ bouger nit ñëpp dañ koy topp waa léegi loolu di nga ko def ci ba nga xam ni am na ambulance war na dugg leneen war na dugg ñu koy bàyyi mu fay jaar waaw ah, voilà non jeex jeex na non li mu wax li mu wax dëgg la li mu wax dëgg la koy dama koy dëggal kon papa kon léegi gëm nañ ni mhm. mhm. kii Makis la moom du APR maanaam Makis yow yaa gën a jege sax ki nekk APR que Macky mais mais non Makis Makis man Makis non man su ma nee boo nee Sonko rek. par exemple yow boo waxoo waxi Pastef dépassé nga Pastef yow Makis nga. Makis la bu Macky génnoon tey créer beneen parti moom ngay àndalaat. àndoog parti ba Macky ngay àndal waaw mm-hmm. ah, doon jooy barki démb en fait ah, foofu <laughs> moo tax ma ni ñoom moom comme li nga wax mm-hmm. Ousmane Sonko du n'importe qui parce que fu mu génne mm-hmm. même pas cinq minutes mu fees dara ay génne duñu ay duñu ay du duñu ay sénégalais lañ ah ay sénégalais lañ voilà mais ñooñu sénégalais yooyu waaw sénégalais yooyu waaw ñoom ñoo ànd ak projet Pastef jël seen leader teg ko ci kanam ñoom ñoo ni ak lu mën a am. Mhm. le président Ousmane Sonko sera candidat en 2024. d' accord naa d' accord non non Amadou Amadou damay tëj Amadou damay tëj dama ko bëgg a xamal ni ko d' accord naa ay sénégalais lañ duñ ay burkinabé ñoo ànd ak moom waaye tamit ci loolu nga wax ne ni ak lu mën a am day am sénégalais yooyu mbaa xam nañ ni tamit dañoo tënku ci lenn maanaam dañoo tënku ci la nga xam ni c' est un état ça dépasse la personne de Macky Sall c' est l' état qui nous régit. man dama nangul li yàlla may Ousmane Sonko. nangul ko popularité am. xam ne bu mu taxaw tey. Uh-huh. chaise sax bu ko tegee gis vingt mille vues. dama ko nangul te non ay sénégalais de pire chose. mu ngi nii benn ngi nii sama mbokk nga. li ñu bokk bokkoo ko Ousmane oh, Sonko te yaa ngi nii. te yaa ngi nii Ousmane Sonko ko bëgg kon mun naa ko juger mais tamit dama neex waxal ñooñu ànd ak moom it tamit ni leen. ils sont dans un état. et l' régir tout. non wax ba ñu ànd ak dal de. loolu leen mënti def parce que non du problème ànd dal. lu ñuy wax wax tamit ñu ànd ak moom nii nii tamit du lu ñeme de loolu tamit na ko xam de parce que bu ñeme woon dëgg li muy wax ba mu génnee démb wala bërki démb lan la leen wax kaa leen dindi barrières yi. non jamais waaye ko wax. le président moo tax ne ay ragal lay di lever ma wax la non kaa ma lever les barrières non. non waxu ko. non na non baax na non non jërëjëf jërëjëf jërëjëf non du ko Moussa wax xam nga lu tax le président Ousmane Sonko n'a jamais di moi. Mhm. G. Mhm. chaque jour on en fait la yow. G du ko Moussa wax on en fait la yow. Moussa xoolal xam nga lan moo tax. non lii daf leen waroon non non daf leen waroon yee. ci benn côté mooy daf leen waroon yee ci lan moo tax waa Pastef jóguñu ni dañuy dindi ji barrière yi par la force. sañ buñ ko waxee te lan moo tax nit ñi génn parce que ñun le président Ousmane Sonko. Ablaye Ablaye sañu leen ko jël Ousmane Sonko le projet moo ñu intéresse te projet. ki ko jiite ba léegi mu ngi cité kër góor gi. le jour où. Mm-hmm. ñu naan le président Ousmane Sonko jël nañ ko yóbbu nañ ko ci kaso bi. Mm-hmm. la Pastef la ñuy gis. yàggatul ko mais pour l'instant nii. waaw ah, Sonko moo fa nekk quoi. Ah, <laughs> waaw ok waaw dans sept mois les élections présidentielles en 2024. Mm-hmm. gis ba léegi Sénégal amul gis nañ fi léegi am na si ñu wax ko Khalifa Sall ak Karim Wade. te gis nañ en 2019 mën naa ne.

déggu fa dañu ni modification de la loi L28. vingt ah non euh, mais attends euh, euh, ci biir semaine bi dina am. <laughs> président wax na ko biir semaine bi li nga xam ne dafa am lu ñu woote dañu woote à un bi ñu ootee un dialogue ñu proposé la ñu wax ca dialogue ba yëpp président téye ko mu desoon benn point bu ñu d'accordul mooy leen troisième mandat ñu ne non on va laisser ça à l'appréciation du conseil constitutionnel président ne du ma leen fa sax àggal je me retire mais li ñu wax ci dialogue bi yëpp dama koy appliquer mais dialogue ba ñi nga xam ne bëgg nañ dialogue dem nañ déggante nañ ne lii lañ bëgg mais bu ñëwee mais dañ koy appliquer. mais mais mais qu'est-ce qui a ba ñu mën xalaat ne Khalifa ak Karim war nañ mën a dugaat. parce que maturité on a un président ba nga xam ne ki ñu amoon ki ñu am 2019 ki ñu am 2024 bokkul en gisoo teer tey gis nga te àdduna mooy dox maturité président ak sagesse am mais mun na ko permettre. ñëpp bokk. mais est-ce que le peuple est la population dina gis dina am même vision boobu ci li ñu bëgg a am si Karim ak Khalifa Sall. non xam nga la population c'est relative tey jii dama lay wax dara ni la man euh, euh, ni Ablaye di gisee ak man ni may gisee bokkul moo tax tey am na ñi nga xam ne loolu lañ gis am na ñoo xam ne gisuñ ko mais nag y a des parce que tey mën nga mën nañ dem ba assemblée pour voter modification bi ni du jàll bu jàllul tamit loolu tamit il faut ñu sóor ko ak Karim delluwaat ci langue politique bi indi na yenn yenn jiixi jaaxa fu mu doon dialogue dialogue Sonko waaw mais damay ñëw mais le grand dealer donc c'est Ousmane Sonko ah waaw garaawul moom mooy lépp euh, moom moo def commencé ak Barthélemy Barthélemy dégg nga li mu wax nee na bi muy dugg di toog ak Macky Sall ñaar ñoo ko xamoon Ousmane Sonko ak Khalifa Sall boobu ba léegi mu noppi mu bàyyi bàyyi affaire am metti mu soog di génn di ci wax kon mooy la grand dealer. Ousmane dealer la waa garaaw mais mais mais di la la xam nga fan laay njëkk dialogue bi ñuy wax avant dialogue bi dañ doon wax naan dëkk bi tout est ok dëkk bi dafa stable lépp a ngi ci jàmm muy gën a metti ñu ni léegi kon nan woote dialogue Barthélémy Dias loolu la wax moo woote dialogue bi président Macky Sall ni moom moo woote dialogue bi kon ñoom non Barth loolu la wax. Barth nee na moo moo moo dem ci président ni ko woote wooteel dialogue. non damay damay ñëw. non. important Barthélemy dafa ni ñoo xamoon. Sonko ak Khalifa Sall bi may waxtaan ak Macky Sall mais tamit bu ko mais la mu bëgg la mu bëgg a ah, la mu bëgg a rek laa koy wax garaaw. waa garaaw léegi président moo woote dialogue mais damay ñëw ci dialogue bi dialogue bi. dialogue bu amee mooy ñu waxtaan bu ñuy waxtaan tey ci palaato bi lan la ñuy waxtaan lan la ñuy dialogué pour déggoo ci mooy ñu déggoo ci benn kàddu jàmm du jàmm lañ doon woote ak lan avenir senegaal Sénégal ah, amoon na fi dialogue jëkkoon na am ah, résultat boobu anam mu suñu ginnaaw waaw non damay ñëw papa uh-huh. mu ngi suñu ginnaaw uh-huh. jaloog bu amee résultat rek. Mhm. buñ avancé ba ci kanam. Mhm. ñu waat dialogue kon am na leneen lu bees. Mhm. lu bees la war a nangu. xam nga lan mooy dialogue. dialogue gu Sénégal jarul woote àdduna ñuy ñëw jarul woo parti politique yépp xam nga lan mooy jaloog bi droit bi sénégalais bi am nga ni leen dinaa leen ko jox mooy ku am lu la naqari li maître Abdoulaye Wade doon wax. boo leen demee ba mu bëgg ko fesal sax na leen jaral ngeen jël lu xonq takk ko seen bopp ñu leen di gis. voilà waaw mais defal ndànk <laughs> président ñëw ni yu ñàkk fayda yooyu noonu la ko waxee. ay takk ay morso yu xonq lool président boo ko jotu maa ngi jégalu kon waxee ko noonu kon voilà. parce que yéen a ngi am problème ak Birame Souleye nii léegi. te xam nga loolu yow moom gis nga gis nga gis nga Birame Souleye Diop. Uh-huh. man Pastef laa bokk. dëgg la. man président Ousmane Sonko laa àndal. Mhm. mooy sama leader. Mhm. mais xam nga lan laa ànd président Ousmane Sonko. Mhm. dëgg projet bi mu porté. Ah, nekk leader bi nekk ci kanam. ma koy jàpp pour accompagner ko bokk si ñi koy pousse. pour ñu jéem a def loolu. mais pas ci sama intérêt personnel. gis nga Birame Souleye li mu wax dem. ba tey xëy di jéggalu. ba tax ñu koy convoqué. kooku Birame Souleye la concerné. non damay ñëw non damay ñëw. non damay ñëw non damay ñëw. Pastef ñoo violent noonu non non voilà. Pastef ñoo violent noonu. Euh, papa. dama la fiy tegal loo xam ne. peut-être mu ngi sama saak. dëgg la kon ma génneel la ko tegal la ko fii donte man am naa carte mën naa wax ci parti. Mhm. am naa carte Pastef parce que Pastef 2017. laa am mhm. carte membre Pastef. waaw ah, moom yow moom professeur waaw laa am ah. carte membre Pastef. dëgg la lu Pastef di woote dama ciy dugg. Mhm. donte. viol moo violent boobu nga tudd. Mhm. dama lay mën naa la indil ay faits yoo xamante ni. Mhm. fi président Ousmane Sonko toll ba fa mhm. président Macky Sall tolloo. li ñuy tudde violent. ñoom ñaar kan moo ko ci def. Ousmane Sonko. voilà nangu nangu naa non dimbali ma rek pour ma leeral ko quoi buñ buñ kiiwee rek day am nu mu nurool nga dimbali ñu parce que daf ci bokk. aussi daf ci bokk non Amadou. le parce que ñoom dañuy utiliser non dañuy utiliser le mot violent. ci président Ousmane Sonko. mais sénégalais dañ bëgg chaque jour boo koy wax ngay yërëmtalu gis nga soo taxawee ci dëgg booy wax bu jaree nga joxoñ sa baaraam na nga joxoñ sa baaraam bu jaree nga yëkkati sa loxo na nga yëkkati sa loxo mais booy wax dëgg am lenn loo ciy seet rek sa digganteeg sa suñu borom am na lu fa nekk Ousmane Sonko nag buy wax li muy wax xoolul neex na euh, waajuram bu jigéen xoolul naqari na ki nga xamante ne ah, moom lay àndal xam nga lan la ciy xool li muy wax yàlla moo tax mu koy wax te li ko ci droit may loolu lay wax le président Macky Sall en 2012 yaakaar naa 2011 2012. 2012. 2011. amul benn yoon place de l'Obélisque amul benn yoon ah bu mu fekkee fu lacrymogène yuy jóge ba nit ñiy jaxasoo. muy benn musul fanaan. Euh, commissariat musul xam luy prison yàlla moo ko defale noonu ay mbiram te tey def na ko président mu gañe nag ci gañe bu kenn mënul werante mais le président Macky Sall mooy ki fi njëkk taxaw wax waajuram mhm. muy président Ablaye Wade mhm. parce que de directeur premier ah, ministre ba assemblée nationale lépp mhm. ci Ablaye Wade la ko jaarale moom moo njëkk taxaw ni bu fekkente ni nanguwul génne pale on va le su doon on la sax. Hmm. dafa ni on va le waaw loolu mais tamit terewul am na plus de mille jeunes yoo xamante ni mën nañ ànd ak moom ñu dem déloger Ablaye Wade. le président Ousmane Sonko n'a jamais dit ça. li mu wax mu ëpp loolu. ku am vidéo. non li mu wax mu ëpp loolu. ku am vidéo ëpp loolu. loolu moo moo taw ma rey mbaa ma rey ko. le président Sall moom mooy dinañ dem génn ko on va loolu moo gën a ni on va le faire moo tax boo nee Sonko mu wax loolu Sonko mi taxaw ni Macky Sall on va le traiter comme Samuel ko dinaa ko dina ma rey mbaa ma. waaw ma damay ñëw. damay ñëw uh-huh. le président Macky Sall. moom donc moo fi def loo xamante ni bii kenn mësu ko def ci àdduna. Uh-huh. voter sans pièce d'identité. dëgg la. le président Macky Sall. moo musa taxaw def benn geste retourné waat di ko nettali. da waaw damay dugg Jurbel may wax ñu naan waruma fee jaar dama ma am droit bi police yi dañoo dañoo taxaw sama kanam dama leen a fël loolu fu mu ko waxee le président Ousmane bien sûr Diourbel. fan. c'est des après dama la koy génneel ma jox ko. mais damay damay ñëw voilà ci ci ci ci ci ci sa ci sa ci sa ci sa question bi mooy euh, comment. Khalifa et Karim. xam nga dafa am solo. muy côté admis yi. ak changer loi bi yëpp. su dee si côté admis yi man bu nee admis rek sénégalais yi war nañoo génn nag ñun ñu wax ñu leeral sénégalais yi lan mooy admis yi. dafa jot xam nga lan mooy admis yi par exemple ñu ni président Macky Sall 2012 la fi toog ba 2023 képp koo xamante ni bii jëloon na fi alalu askan bi. dan lay baal du nit la ñuy amnistier du Karim lañuy ñuy amnistier wala Khalifa Sall amnistie ay fee la maanaam tey ñu ni képp koo xamante ni sàcc na mango diggante deux mille 2012 ba deux mille 2023 képp ku fi sàcc mango mango askan bi baal nañ la. dañuy xaar bu affaire bi jàllee mais damay ñëw ci problème mu ci problème mu changer loi bi. mais Amadou yaa ngi yéen a ngi yéen ngi juum nag non boo leen fi bëggee wax amnistie te amnistie gisoo leen ku ko fi wax. da ngeen di juum non non damay ñëw su dee admissible leen même même su fekkente ni modification loi bi waaw mais damay ñëw ci modification loi bi may ma. mais koy lire xam mais modification loi bi. modification loi bi xamoo loi bi. xam voilà voilà loolu loolu lépp loolu lépp am na ci ma jaarale fa rek pour waxaale ko gis nga li mooy li ñuy wax mooy li ñuy wax gis nga bu njëkk xam nga lan moo fi amoon les soi-disant intellectuels ñoom ñooy toog wax nu mu leen neexee ci dëkk bi. Mhm. làkk ko ci làkk bu leen neex. ndax duñ bëgg ñu comprendre mais loolu dafa jeex ci dëkk bi waaw <laughs> xam nga léegi lan la sanq bi ñuy commencé dama la ne système bi moo toog papa di da nga diplômé que système maanaam borom xa non ñëw non dañuy waxtaan. dañuy waxtaan bu ko féetale sa bopp damay jàng ci yow damay jàng ci yow moo tax may laaj non dama ne système bi moo toog xam nga lu tax. xam nga lu tax papa maanaam. dañ investir ci yow nga jàng jàng jàng ba toll fi nga toll. ah man par exemple suñu investir ci yow quatre-vingt. man investir ñu ci man dix. pour ma jàng. xam nga lu tax. CM2 laa bàyyee. tey dañuy bokk plateau xam lan moo ko indi. mooy que ni dañ ñuy yee. ba liñ daan toog di waxtaan ay sabar ba. di waxtaan ay. ay problème mu sorti ba. léegi ñu concentré wu ko ci suñu réew. jéem a lijjanti. voilà lan mooy sartu ndeyu réew mi lan lan wax. di jéem a déglu di comprendre ñooñu nag tey ñoom ñoo ñëw ci palaato yi xaw a déranger les soi-disant intellectuels te ñooñu ñooy sookulu Sénégal ñooñu tey ñoom ñoo ànd ak le président Ousmane Sonko. mu sell mi yàlla yàlla yàlla yàlla may ndax ñu avancé léegi Papa Mbengue Macky nee na du bokk est-ce que actuellement Benno préparé na benn deuxième personne boo xam ne tey dina leen boot ànd ak yéen dem. Ah man man bokkuma Benno nag moo tax mënuma ci wax man daal ma Macky laa Macky 100 pour tamit leen xam na am na am na 95 pour cent de chance ku mu fi teg ma ànd moom parce que dama koo bëgg mais nag am na tuuti choix la nga xam ne bu ko tegee mën naa mel mais 95 pour cent ku mu fi teg mën naa ànd ak moom man Macky rek laa. mais est que loolu mais par benn benn. bokkuma Benno est-ce que du indi jiixi jaaxa biir APR yow d'après sa sa sa xalaat. sama xalaat sa xalaat. waaw mais nag kaay moo la dara mais bu indee biir ji bi jiixi jaaxa dama leen koy bindal chaque jour bind naa ko léegi ni leen y a deux choses soit ils s'unissent pour survivre ou bien ñu désunir pour disparaître il sont obligé de se donner la mais muy APR muy benn bokk xam nga lu tax gis nga ay jëppeet duñ jëppante yow mënoo ñëpp jëppi la ngeen bëgg seen biir jëppante Macky Sall def na fi la nga xam ne njabootam bis mu ñu jàppoo uniru kuñ taxawal fël la ku àndul ak Benno Bokk Yaakaar mënoo gañe ku àndul ak li may wax dama ko de ku àndul ak Benno Bokk Yaakaar mënoo gañe élection fii moo tax ma ni ñoom ils sont obligés ñu joxante loxo kii Macky Sall di décider ñu ànd ak moom mais nag li nga wax nii dafa am solo de ak ñoo bëri jikko APR del xool bu ñu tegee kii suba nga gis beneen front du génn je suis avec di je suis avec man ànd ma ci kenn man ki Macky Sall teg laa ànd. waaw ah waaw parce que yéen a ngi waajal candidature Benno xam naa ne ñoom ñoom ñooy samay adversaire fu mu toll nii yéen moom ñoo ngeen tëj bët fu mu toll nii. Amadou ci commencement wax bi dafa am lu ma la wax dinaa tontu sa question nag mais dafa am lu ma la wax ci commencement bi dama ne ñun président bi génn keroog ak fee yi mu def avant ah man ba lay gëmaguma ni moom du dem mais ñun mu dem. ak mu ñàkk dem ça ñu fait ni chaud ni froid ndax ñun liñ yor xam nañ ko dañoo liggéey ci terrain indi ci Sénégal leneen ki ci mënul ànd mooy ki gëmul ni Sénégal war na génne ci gute gi beneen bi mooy gis nga damay ñëw nag ci Benno Bokk Yaakaar benn nit moo fa am sens nañ wër ku leen neex ñu am nañu naan Euh, président assemblée nationale Amadou am Diop bi def président indee lañ ko xam mais dama ni benn nit lañ mën a indi maanaam xoolal am téeñ waxuma la yenu de am téeñ ndax da ngay téeñu ba pare soog a yenu muy Amadou Ba amul keneen amul ke non ah, non non amul keneen mais xam nga lan mooy problème bi mbir mi du foofu président Macky Sall Benno Bokk Yaakaar rëy gi mu rëy ñu dem ba élection des ay huit mois ñu ñuy gëmloo naan président nee na du def léegi ñu ngi xool kan la ñuy dugal euh, lijjanti suñu biir te président xam carrément ni ñoom ñëpp kenn xaaru ci woon lii président xam carrément ni ñii ma àndal jubboowuñu chaque jour fan lay dem Cambérène rek bi mu fi ñëwee lan la wax ànd leen nekk benn fu mu dem loolu lay wax France bu fa demee lan lay wax ànd leen nekk benn parce que du duñ benn bennoo bokk yaakaar pour pour te dire. kenn ku si nekk sa bopp nga fa nekkal. Mhm. directeur bu ànd na ak ay nitam mais nag seen militants yi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo joué loolu parce que bu ñu falee directeur ñoom ñëpp dañuy daw rangé wu si kooku bu ñu la foolee ñu daw dem ci keneen ñoom ñooy génne di waxante seen biir ñoom ñoo ut ay clan mm-hmm. pour ma firndeel la du ñu benn ñun ak ñoom. gënoo leen may def émission bi non duñ benn ñu ne ko waa benn. mais non mais gënoo leen aussi. non ah. ñun déggoo li ma la su ñëwee ci cadre parti. waaw Pastef du moroomu APR. non loolu nga foog rek. yéen yor leen parti non dama lay wax waaw dëgg la yéen yor leen parti. waaw pour ma firnde loolu pour avant émission bi nii. Mhm. Euh, dama Pastef Cambérène lan nekk. Mhm. peut-être Pastef laa bokk. mais Pastef kenn ku nekk daa am foo nekk man mhm. Pastef international laa nekk. jërëjëf comprendre nga voilà euh, Cambérène. pour ma wax ci il faut que ma consulter ñi nga xamante ne ñoom la concerné mooy woo naa Boubacar d'ailleurs nee na seen plateau yi. doo leen ko ci woo. ah non non non non. voilà non damay. non non non taxaw taxaw naa dama man maa fi toogal Louga TV. Boubacar dañuy accusé ñu bëri ñu wax rek. Boubacar Boubacar on l'a contacté nañ ko plusieurs fois dem nañu ba këram. bëgg ko jël mu naan non damay xaar damay sama yaay laay xaar. waaw ok depuis loolu dafa dégg dégg dégg déggaatuñu. waaw ok fii mu ngi accusé di def comme ça. ko beneen bi ci des ñun suñu parti noonu lay doxee kenn ku si nekk da koy jox cëram. dañ mën a dañ mën a ruube ñun noonu lañ mel parce que parti bu ko gën a organiser fii amul te kaay ma wax la leen sart yi parti politique war a doxee ñoom ñëpp nañu wax benn Pastef moo fiy doxee noonu. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce comprendre nga loolu parce que dundewul lenn lu dul sama 100 francs 200 mujjee 100 francs keneen. xam nga option. mais mais mais Amadou option bi mu option bi mu jël xam nga tey nee na balaa moo ñëw fii tàggoona li tax ma bañ parti parce que man ñëw fii amul ci kaw suuf barke Seydina Limam mi ma gëm kenn ku ma seetaan da ngay da ngay am surprise dépendre ma ci kenn man maa ñëwal sama bopp. Aziz mii nga xam ne mooy président Lou'Bess TV woo leen ko ngeen laaj ko ndax on discute chaque jour ba deux heures du matin ndax nee na ma am nga émission wala amoo émission barke Seydina Limam ki woo Amadou. mais pour wan ni la conseil conseil benn affaire xam nga man xamante nan. dëgg yàgg na waaw du tey yàgg na xamante nan bu yàgg. Uh-huh. mais pour ma consulter kenn rek. Uh-huh. dina ma ni voilà papa nit la koo xamante ni bii ku man wax la. dégg comprendre nga nit la ko mais aussi à chaque fois à chaque fois yow li nga maîtriser. Uh-huh. dee ci wax. mais yow dañuy mais nag mais nag bokkul APR mais man li ma jàppoon mooy APR nga bokk. voilà ba su ma ñëwoon tey boo nee bokkoo APR. Uh-huh. boo nee bokkoo APR damay ñëw dal sa kaw ni la looy daw looy dem ba heure bii di daw. mais yow xam nga ni. bokkuma APR mais xamal nan ma ni bokkoo APR. non bokkuma fa mais su ma wootewul woon duñ ma xamal loolu. débat bi débat bi du ñu ko permettre. lii nag li ñu leen indiloon naa cher internet léegi papa dañu lay bàyyi rek nga nga tàggatoo ak sénégalais yi. waaw ah, salaam. maa ngi maa ngi d' abord balaa maa tàggatoo sénégalais yi di gërëm pla euh, waa Lou'Bess TV ñi nga xam ne ñoo ma permettre maam plateau ba mën a wax ci lii donc di ñaan yàlla na doon télé ba nga xam ne dañ koy dégg fu ne di ñaan di aussi tim dafa nekk suñu dëkk nekk suñu dëkk muy Cambérène kon nag suñu télé la ñoo ko moom. sànq maa ngi dégg sama xarit Ablaye bi muy wax ak bi muy wax naan télé bii ñoo ko moom effectivement Ablaye ñoo ko moom te nañ ci jàpp mu dem li may tàggatoo Sénégal mooy Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ñu xool exemple di gërëm bu baax di féliciter encore le président Macky Sall tey jii 17h mi ngi ma waroon fekk buntu palais les grilles du palais pour tàcc ko ci concert d'applaudissement bi ndax moom wootewul concert casserole concert d'applaudissement la woote donc fa la ma ak amour bi nga xam ne am naa ko ci moom moo tax ma ne naa ñëw toog ci plateau bi pour mën ko defaan di ñaan yàlla yàlla na Sénégal jëm kanam yàlla may ñu donc ay bis yu yu sedd yi jëm ci kanam yàlla def tamit ki fi président di teg mu ñëw nekkaat président jërëjëf. dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak euh, suñu sër internet yi. waaw euh, fi mu daaneele laay ñëw. non balaa moo dem tamit di ko gërëm ah, di gërëm parce que très sincèrement jafe na nga am plateau yu mel nii dajeeg nit ka nga xam ne dafa bokk Pastef mel ni mel. mais mooy comme ni may wax mais nag mais comme ni may wax mais moom mooy dégg la xam nga nit kese bokkul ak nit ku am leneen donc moom dama koy gërëm di ko sant aussi tamit si débat parce que moom it damay jàng ci moom ndax daf may jàngal lu bari jaajëf. voilà moom fi mu daaneel fi laay ñëwee moom dafa dafa remercier le président Macky Sall ci act bi mu def hmm? mais man foofu damay génn président Macky Sall remercier askanu Sénégal population Sénégal parce que ki consulter ay nit. expert mu ñëw fële pour xoolal ko ba xam mën na bokk mënul bokk dem ba jël de ba ba mu des ay weer pour pour mu dugg ci candidature am ah? yàlla dogal bi muy jël décision bi ñu bëri ne daf ñu bett kon kooku am na leneen lu nekkoon ci boppam lu bu teg la nekk ci livre ba kon le peuple Sénégal peut-être seen taxawaay moo tax no du ma ni pression non non du pression voilà le peuple sénégalais bi zesam zesam zes yi ñu def ak taxawaay bi nu am moo tax le président reculé comme ni ko comme ni ko Mimi Touré yéen seen leader seen leader seen leader nag du euh, déglu pression de ci wàllu lu bees seen leader amul pression waaw mais nag <laughs> yàq sa sa tàggatoo xamul da ay gaañ la mais président dès ko wax muy tudd turu Ousmane Sonko waaw d'accord loolu loolu dinaa la ko mais président Macky Sall ni mu amee pression dama kontaan nit ñi non nit ñi bu ñu naan pression moo tax mu jàll dama koy accepter parce que bu fekkee loolu tam mu jàll nit kuy déglu nit la pression la mais moom président bañ na ko ba mu génnee barki démb sax mas sawul ñi ñu yàq seeni bagage moo tax amul pression voilà damay remercier bu baax euh, Lou'Bess TV ndax nag actionnaire laa fi te li ma la wax mooy lenn dañuy changer DG li ma wax mun kii kii defar émission bi bu mu ko dagg dañuy changer DG Lou'Bess TV dinaa ñëw ñu signer benn pétition xool kan la ñuy fal voilà di ziar ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ni le président Ousmane Sonko yéen waa Pastef laay wax le président Ousmane Sonko sera candidat en 2024 incha allah et le président Ousmane Sonko sera président en 2024 incha allah midi écart ñu tàggoog moom. jërëjëf euh, chers internautes de Lou'Bess TV may remercier sama ñaari euh, invités yi di di remercier aussi suñu caméraman yi ah tey moom Abdou Aziz Fall mi ngi fii ah, Libaas ak ak Aliou di leen wax aussi que Lou'Bess TV du Abdou Aziz Fall. Lou'Bess TV. lu bees TV senegal la amuñu xaj ak seen ku am looy wax boo fa gis suñu buntu ñu ibbil la ku ñu demaase nag woo la wax ak yow benn ñaar ñett boo ñu wuyul aussi duñ la forcé ëllëg nag boo doxee ba ñëw ñu ubbil la mais xam leen ni Abdou Aziz Fall bu Cambérène ak lu Lou'Bess TV c'est diamétral opposé yàlla dafa def nag lu Lou'Bess TV nekk biir Cambérène mënuñ ci dara den di sàkku ñaan ci yéen rek bu baax a baax waaye daal Abdou Aziz Fall teg leen ko fële ci mbiru Lou'Bess TV nga xam ne mbiru Ahmadou moo ko moom Aliou Libaas ak ñoom Chérif gars yi ñoo fi nekk di la bu baax di remercier aussi ki xam ne moom solal tey ah sama sama doom doomu ndey sama xarit Maskoor Bidéew moom nee na ma moom booy dóor émission ñëwal boutique ba jël lu la neex sol ñoo toog ma may loxo ko yaa ko moom dama koy remercier bu baax a baax di remercier Sénégal ñëpp yàlla na jàmm am Sénégal